am dare ko gën ñun ba nu ko amee ba tey waat naa ni nammunu dara am junni am dare ko gën ba ñu ko amee ba tey waat naa ni nammu am dare ko gën ñun ba nu ko amee ba tey waat naa ni nammunu dara am junni am dare koo gën ba ko amee ba tey waat naa ni namuñu am junni am ndere koo gën ba ko amee ba tey waat naa ni namuñu dara ndari ni doxal sa dox ba kenn laal ma yóbbu ko Chine ca corona ba kenn du ko jëli su ko defee ñu waxaat auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu mus ci wat seytane bu baax a baax baax xamna ne sax seytaane mënul ci ñun dara ndax protéger nañu ba paré comme on a l'habitude de le faire à chaque fois dañuy ñëw fi amal fi ay programme yo xamante ni c'est juste pour wa maternité bi suñu wax wa maternité bi nak duñu wax madame saxo duñu wax rakki duñu wax badjen Mati duñu wax badjen day Ndiaye duñu wax ñeneen badjen ni mais dañuy wax tout juste maternité bi c'est pour tout le monde ndax man mi di wax ak yeen fi la juddoo kon donc ku si nekk am na ci wàll donc ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax si activités yi nga xamante ne nii moom la ñuy def ñu jaarale ko si suñuy partenaire muy euh, ki nga xamante ne mooy ANVO Africam ak association pour le développement de yëmbal waaye ànd seeg bi euh, madame Sakho aussi yombalal lépp ba mu yomb ñu koy ñaanal jàmm ju bëri jàmm ju sax sutura bu law dund bu am tawféex ci zaahir ci baatin ak ñëpp ñi nga xamante ne nii moom lañ àndal tey nag bu ngeen gisee journée bi dañuy wax ne euh, lutte contre le paludisme lépp loo xamante ni wàllum sibiru la ñu koy xeex waaye nag xeex bi dafa war a ànd ak ay matériel dafa war a àndal li nga xamante ne nii moom mooy ay protection les hivernal hivernales aussi tamit dañ ko siy boole donc comme ni ko madame Sakho waxee toujours rek mais dafa war a am lu mu àndal li mu war a àndal nag mooy set sel ak di ko jëfandikoo si sunu yaay yi si sunu sœurs yi si sunu rak yi particulièrement ci kër yi ak ci mbedd yi donc nit ku si nekk da nga war a set ndax set dafa bokk ci jaamu yàlla donc tey ñu ànd ak ñi nga xamante ne nii moom association pour le développement de Yeumbeul je pense que xam ngeen ko waaye am na ñoo xam ne xëy na peut-être xamuñu ko toujours rek suñuy activité moom mooy nu ñuy fexee rek ba maternité bi jëm kanam ndax ñun suñu objectif mooy li olof Njaay di wax naan bay sa weewu tànk balaa ñuy amal lépp loo xamante ne nii feneen la dañ koy indi ci maternité bi parce que fii moom mooy baas bi fii mooy base bi parce que bu ñu nee base mooy que jigéen ñi nga xamante ne nii maanaam bu ñu nee jigéen d'une manière générale par force dañuy ñëw ci maternité bi que ça soit dañuy ñëw pour am donc que ça dañuy ñëw pour leneen ak leneen mais par force dañuy ñëw ci maternité bi kon donc lépp lu ñu mën a def rek pour que sunu yaay yi sunu sœurs yi am jàmm rek dañuy ñëw ci maternité bi fii def ko tey nag mu nekk journée bu spéciale waye bala may xusi wax ji damay euh, bayyi sunu yaay sunu bàjjen sunu lepp ma jox ko parole bi moom mi wax comme nima ko faral di waxe neena len tay wax ji du yag waye il faut ma jox ko mom mu am li nga xamanteni ni da koy wax par rapport ak li nga xamanteni mom mo xew tay muy journée bi mo ande ak association pour le développement de yembal ak ANVO Africam ak mairie bu Burgos donc ma bayila madam euh, madame saxo su ko defé nga am ay cadeau yo xamanteni di ko si jàllale. ADI ak seeni partenaire ANVO Africam ñun wax dëgg yàlla gannaaw ba ma nuyoo ñi fi nekk yëpp nuyu personnel bi nuyu ndëri nuyu abi nuyu bàjjenu gox yi nuyu ñëpp ñi nga xam ne fii ñu ngi fi teew damay wax ne lii nekkul guléet loo xam ne depuis defe naa at yu baree baree baree baree bare at yi mu ngi accompagner maternité yëmbal yow sànq danga yemale ci maternité yëmbal yëpp rek mais adi askanu yëmbal yëpp la jàppale à travers Ndéri Aidara askanu yëmbal yëpp tey dañoo war a ànd yéen ñi delloo leen njukkal bo waxee nak dañuy yaakaar na xajna waxu politique ngay wax man politique ma mais ku gis nen rek ne nen a ku mana jël sa alal ak alal lu mu nexé ci xol nga ne sama askan waruta a sonn période buñ tollu ci année bi ngeen taxaw andak askan bi pour mana ar askan bi euh, li fi dañu nek ci nawet mu metti lolou yëmbal inondation am ndey yo kese juddou lo yëmbal yo kese màggew lo yëmbal yo kese tekki lo yëmbal am na doomu yëmbal yo xam fi lañ juddou fi lañ màggee fi lañ tekkee mais li nga mënal yëmbal tay, gisuma ku ko mënal euh, yëmbal et je le dis la voix haute parce que te aussi deug rek mo neex dañoo ne lutte contre le paludisme pendant l'hivernage lutte contre les maladies hivernales war ngeen a xam ne mbënd fu mu nekk ay góom mu ngi ci xale yi man sama sët yaa ngi ni dañooy wokkutu actuellement biir yu daw yaa ngi ci xale yi wànnent yaa ngi ci xale yi nga jënd ay jël ay junni junni def ko ci saabu def ko ci eau de javel def ko ci ay madaar ne xaaral ma dem dimbali xale yooyu ak seen yaay jox leen ko ndax yokk seen cet pour que ñu bañ a am feebar yooyu yemuloo fa nga jël ay loowu moustiquaire yu cher actuellement bi ma gisee sa loo yi sax man dama yéemu parce que moustiquaire euh, circulaire amul amatul fenn nga dem lijjanti ji ay moustiquaire nga ne du ma yem foofu il faut ñoom ñu tëdd ci sànke pour yooyu bañ leen a màtt pour que mu bañ leen a kii euh, sonal ngir gàcc ngalaama am na leneen loo xam ne sax dama koy wax par anticipation te yemoo foofu nga ne nañu ana malnutrition ana xale yi nga xam ne ñoo xiiboon mbir yëmbal dem leen wërali maleen dépistel maleen ma jox leen loo xam ne mooy tax seen yaram ñoŋ loolu dinañ ci ñëwaat ci fan yi mais dama koy anticiper parce que sama loolu dafa nekk loo xam ne daf ma neex lool lool lool lool lool moo tax ma anticiper ko ndëri gàcce nga laama ku mu neex gàcce nga laama ku mu naqari gàcce nga laama waaw man duma politique depuis def defe naa sama fanweeri at ak benn maa ngi fi yëmbal bu ma bëggoon politique tey politique té bu ma politiquee nit ñi top ma man ma jël par principe duma politique mais képp ko xamné ne nga structure bii dimbali structure bi ah. man damay ñaax population yëmbal ngeen bàyyi xel ndéri ay dara mi té xamné ne ay ah, dara mi machallah allah man loolu rek la amoon li ma lay wax parce que dañ la ñaanal ñaanal ñaanal ñaanal xol bu sedd rek ñaan la muy julit bi muy catholique bi muy képp ko xamné rek yaangi askanu yëmbal amul xaj amul sen jàppale ngalen ana ambulance bi ana lal yu nooy yi nga xam ne tey ay mat matelas pneumatique moo ci ne ku fi accouché tey ci lal yu nooy ngay tëdd ana ban maternité moo am ay matelas pneumatique ana ambulance 35 millions bi mu ñu jëndal ah. tabaxal ñu mbaar ne dans quelques jours nga indil ñu ambulance bi bii ba mu paanee ma ciy def xaalis di ciy def xaalis ba ci yàgg danga ma ñëw sama bureau ne ma madame Sakho gaareel ambulance bi sonn nga ci ambulance flambant neuf laa lay indil maag samay partenaire ànd ceeg aji ñëw pour askanu yëmbal man defal loo ma ko <laughs> man ndëri man fonctionnaire rek laa bu samay wàll jeexee damay dem lépp loo fi jënd tey indi ko askanu yëmbal nga ko defal appareil échographie buy jar huit million cinq cent <laughs> moo nekk fii jigéen ñaa ngi nii rek di def échographie ñu fenn di def échographie jënd appareil cryothérapie boo xam ne tey pour traiter les lésions précancéreuses ndëri nag loo desel waa yëmbal nag fi ñu toll nag waa yëmbal ñoo la desel dara waalu yëmbal ñoo la war a delloo njukkal lii may wax nii nag nëbbu ma ci dara je le dis et je le redis jërëjëf ndëri jërëjëf Adi jërëjëf Anvo Africam fu mu mën a taxaw muy télé fu mënti nekk dama naan ndëri moo ma def li ma doon du ma ci soxor ndax euh, nit ku nekk li mu def danga koy waxal danga wax sànq lu am solo nga ne defoo euh, li ngay li ngay wax nii du politique wala dara lii mu def nii je pense que bu doon politique la tey fii kenn du fi xaj ndax am na ay groupement femmes yoo xam ne ñu ngi ci ginnaawam su doon politique la wala bëgg a wanewu je pense que tey ñooñu ñëpp dañ leen woo ñu ñëw fii. wala illa ñu jël matériel yi génné ko ci mbedd bi dem Chicago def ko fa wala ñu dem feneen def ko fa mais lepp lu ñuy def dañ koy def tayar rek tax dañ koy def ngir maternité bi parce que tay comme niñ ko waxé niñ ko waxé euh sen walla day wëy bu ngeen fi jógee amna ñeneen ñu fi def donc ñeneen ñi fi ñëw ñom ñoy jëfëndiko li nga xamné moy matériel yi donc ñooñu tamit bu ñun tamit bu ñu leen mëne accompagner dañ leen accompagner kon donc fi matan bi sunu kër la sunu lepp la comme ni ma ko faral di waxee kon donc yàlla ñu yàlla defal jàmm comme ni nga ko waxee nañu jox ndëri bopp xëy na du politique moo tax ñuy waxee mais dafa fekk ni nit ku lay may ñaar dërëm chaque jour mu may la ñaar dërëm muy dëkk bi di metti wala muy xiif wala muy mar mu may la ñaar kon war ngaa mën a jàppale ko boobu ëllëgee bu ma yeneen bu yoree fukki dërëm mën laa jox kii dañ ko war a jàppale te yàlla rek tax ndax amul dara wallaahi lazim barki alxuraanul karim ñun ñoo bokk association bi mais dencul dara kërëm ndër yorul compte banque bu mu yoré bu mu yor ci boosam lu mu yor jox na ko nit ñi nit ku amul dara nak di jappalé ay nit kon koku dañ ko wara jappalé ndax li mu bëgg bu soté ñu ñëmbal gi yëpp mën a see mën sé mën see bénéfice wu waaye nag ku bu ku bot gu ki xaj mawla wala fi njaay day wax lolu kon donc lu ci mënti am rek dañ lay conseiller à ce que nga dem ci kanam té nga baña tégg sa tank parce que ñun on est fier que nga nek sunu président association pour le développement de yembal on est fier pour nga nek le maire fi ci yembal li ñu bëgg defal ñuko inshallah rabbi ay rabbi su ko defé nak comme ni ko madame sako waxé donc dañuy continuer ak programme bi parce que néna len euh du yàgg xeyna peut être sax togu nañ ay añ rien que pour ñi nga xamanteni ne ñoo fi nekk ñu won fé añee ndax à chaque fois rek dañ koy def ci maternité bi euh, bala bobu nak damay jox ki nga xamanteni aussi tamit bu ñuy wax bàjjen dañuy wax moom ndax tak am na ñu mu àndal ci ginnaawam waaye dañ koo jiital auzu billaahi mina sheytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim ma lu tuuti nag ndax dama xaw a soj mais nag sant yàlla lii ñun bàjjen mënuñu ko fekkee te waxuñu ci dara ndax daf ñoo jàppale ci suñu liggéey ndax kuy xeex sibiru kuy seex xeex maladie diarrhéique kuy xeex feebar yoo xam ne nawet la muy ay picc muy ay xasanu soo gisee lii il faut nga wax ci dañuy kontaan di sant yàlla bu baax a baax di sant nag kii nga xam ne moom mooy Ndari Aidara jiite lii nga xam ne moom mooy Adi euh, di sant waa mairie de Burgos di sant Anvo Africa ndax njiikat ñoo ñu jàppale ñii ñoo jàpp maternité yëmbal ñii ñoo taxawu maternité yëmbal ndax lépp loo xam ne am na fi dañ koy wax kat comme ni ko madame Sakhe waxo suñu baat ca kaw fii lépp lu fi baax aadi moo ko fi indi ak ay partenaire am bu ñu demee ba ñun bàjjen yi ñu dem VAD ñëw am lu ñuy teg ci suñuy loxo ñuy jënd saabu nañ ko gërëmee ndëri ay dërëmee dëgg la wala du dëgg di gërëm ñëpp di nuyu ñëpp bu ñu nuyoo aadi nuyu Marème mii nuyu madame Sakho ak bàjjen yeeg relais yi nga xam ne ñoo fi toog ak suñu stagiaires yi fi nekk dañ leen di seedeel ëllëg fu ngeen dem ne leen yëmbalkat am na doom ju fa nekk ju barke goo xam ne xam na fi mu juddoo xam na la mu doon xam na ña mu nekkal ba lu mu am yóbbuwu ko ca àll ba da koo delloo si fii nga xam ne fi la dëkk du moom doo nga fi juddoo de du moom doo nga mën lii mais joxe ci xol la nekk lii yéene la ëllëgati sibit fépp fu ngeen dem fu ñuy wax doomu yëmbal bu tekki na leen am na ku ñuy wax ay dara macha allah li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal ki am dërëm di la jox su amee fukk na nga xam ne du la fàtte te ñun communautaire yi kat comme ni ko bàjjen di waxee ah politique ma de waaye fa ñuy politiquer ki nga xam ne amul di la sédd bés bu amee cër danga nga xeej di nga xeej ji te ñun ñii danoo war a xeej ñoo bokk soxla si nag askan wi la ñuy xeexal ndax bu sa kër feesee yaa ngeek ndox doo foo toll yaa ngeeg lan euh, yooy boo jógee sa doom dem ci ndox mi indiwaale feebar microbe ya may indi nga raxasu ak saabu yaa ngeeg eau de javel yaa ngeeg ma daat lii kay mooy ne àndalak ak wér gu yaram soo àndeeg wér yaram dundal ndax ki bëgg ku bañ nga feebar moo la yéene jàmm kon daal ñun ñu ngi sant yàlla bu baax di la wax kat ana waa ca kanam li nga bëgg yaa ko xam yal na la ko yàlla jàppale ñun de ñu ngi ci sa ginnaaw an ñun waa maternité ñu ngi ci sa ginnaaw ndax kat dangaa def ñun ñu gis ku def nag ñu wax ko te li nga def loolu ñu ci wax te fu nu demit danañ ko fa wax bàjjen yaa ngi nii seen kàddu ci laay waxee te duma wax loo xam ne bu ëllëgee su ma taseeg ñoom naan ah rus wala ñu ne ma sant nu la loolu kon yal na yàlla dolli xéewal ñun duñ la ñaanal dañ lay bàyyeeg yàlla ndax ñaan yëpp bu tasee ñaan gu bari day euh, euh, gàllankoor kon li ci des yàlla xam na yàlla mën na yàlla am na yal na la yàlla defal li nga bëgg jërëjëf ndax tey duma jël palal ndox bàjjen ma ti li mu wax rek dafa sedd xol waaye ndëri hmm. ma ne damay feeñal sama bopp nëbbatuwuma dawuma daayuma man jigéen ñay jëkk ànd ak yow maay pee sama carte yow laa koy may ndax ki lay may dërëm su amee fukki dërëm may la ñaar fukk maa ngi ci sa ginnaaw maa ku ma am ndax kat dañ ne yow yaay mbonaat ndax mbonaat a xam la ca déeg ba moom may nuur ma ca ban ba yow dangaa nuur ma ca ban ba merci di di di jël di jël di jël nuyoo bi di ko teg sama yaay ji ñaawal ji muy madame Sakho maag moom noonu la noonu lañ mel ay cousine lañ waaw man man jàppee ma ko patron laajal ndëri ndëri moom mën na koo seede saa yu ñëwee réunion man li ma neex laa koy wax li ma ne laa koy def loolu loolu looloo tax mu may wax loolu waaw léegi mooy su ma su ma nuyoo waaw su ma nuyoo bàjjani ba pare naa nuyu ndëri ndëri ay dara ak ñu mu àndal ak ministère de ak ministre de la femme di Mariama Sarr maa ngi koy bu baax a baax ak ak xale yi may àndal di liggéey muy relais communautaire yi. tey nag suñu langue yi dafa rax parce que de parce que docteur Dieye daf ñoo envoyé ay stagiaires mooy xale yi toog nii ñu ñoo ngi jógee université Bambey kon jar na ñu ñu ñu présenté leen waa ñoo ñoo ngi nii toog ñu ànd ak ñun euh, dañoo def si stage. Euh, avec les activités communautaires parce que santé comme la ñuy def docteur Dieye envoyé ñu ko far nag ñu ñëw tombe ak les avec les activités communautaires fii ci euh, waaw ñu tombé avec les activités communautaires fan yii yëpp ñëw ñu ngi ci terrain bi barki démb ñu ngi fi woon tey aussi ñëw nag dajeg lii ñu ñu war a ànd ak ñun gunge ñu ci ci terrain bi man nag euh, luñ ci wax yëpp man ci leneen laay wax tey liggéey bi dañ koo séparé da <laughs> dañ koo def en sept équipes parce que parce que parce que dañoo ne ci quartier lañ jëm madame Sakho wax na ko mais itam ci quartier yi dañoo ciblé ay quartier nga xamante ne ñoo gën a tooy su ma nee tooy mooy am ndox ñoo gën a am ndox léegi nag bu ñu xoolee fee euh, jël nañ quartier Daaru Salaam Daaru Salaam 1 mooy mooy quartier euh, Babacar Cissé foofu tamit euh, dinañ ko jël parce que ci ginnaaw peut-être que quartier bi kawe na mais dafa am descente voilà foofu ci descente boobu noonu ca barax boobu ca barax ba am na ay kër yu fa ne foofu tam nañ fa dem coro dina fa dem ànd ak kenn euh, après tam suñ fa jógee nañ dem face euh, face 2 mooy quartier Bamba Diallo bi laal Njaayeen tuuti nii ak quartier Elimane Fall xool ay quelques kër yu fa ne foofu tamit euh, màgget dana fa dem suñ fa jógee dem fii nii fii fii benn baraak parce que lii du du du alalu ministère de la santé bu alal ministre de la santé mën nañu yem ci suñu zone mais dañ adi dañ ko indi ñu population yëmbal képp ku am ndox am nañ tam ñu ñu dëkkal ni benn baraag bi fi ñom fi lañu ñuy faju see ndax ñom bu dé lool la am na ñoo xamante ne benn baraag lañ dëkk mais fi lañu ñuy faju see ñoom tam gis nañ ni gannaaw fi lañu ñuy faju see te ñom ñu ngi dëkk ci ndox te jamono yé passé dama nañ ba may leen bu ñuy joxe daara yi dama nañ ba fofu may leen ay basang may leen ay kamil may leen ay téré alcorane kon gis nañ ni quartier boo am na ndox ñu yelu fa tam benn équipe mu yegg fa kër Pa mu Mamadou Ndiaye démb woon naa ko wax naa naag moom waaw ak ay yére très bien merci ak tam quartier quartier Afia foofu tamit euh, Afia ku gis Afia xam na ni kooku jarul di wax foofu ndox la xur la foofu tamit foofu tamit malaadu dina fa dem euh, fee benn baraak mari mari dina fa dem ànd ak yeneen xale après bu ñu jógee foofu <laughs> am na quartier Papa Ndiaye waaw quartier Papa Ndiaye moom ñëpp xam na ni quartier boobu quartier ndox la ak quartier quartier Issa Ndiaye ñoom tamit euh, Fat Fall dina fa dem ak Aram quartier ji de Marine Aram Aram dina fa dem ak tamit euh, ak beneen quartier mooy Daaru Salaam 5 extension ak Laman njaay Laman Ndiaye ku ko xam-xam na ni moom quartier ba daanaka euh, daanaka jeex na ndax ndox waa nii daal lañ tëralee tey pour comme ça équipe bi ñu fi jógee day ànd nag ay fiche VAD nag équipe équipe de 2 wala équipe de 3 mais dina am kenn ki nga xamantene ni fiche parce que xolé même kiti kiti amna ay kit de 4 bo ñu bind quatre bind trois bind deux bind 1 parce que di dem ci kër euh, ba wax waxtaan Lamine moma sama attention parce que famille ay famille yaatu lañ mën nañu soxla ba moustiquaire am ay kenn nit la sax benn célibataire bu luwee ci kër kër ga am ndox mu soxla moustiquaire ñu yëkkati benn jox ko xam nga célibataire mënoo koo jox kaat kon da kii am na ñi nga xamante tamit famille dafa gën a yem jëkkër ak jabar lañ ak seen benn doom bu ñu tëdd ci suuf kooku boo ko joxee ñaar dina ko arrangé am na ñi nga xamante tamit dañoo nekk ak seen i goro boo ko joxee xale yi jox goro bi jox euh, famille bi comme ça ñoom tamit am nañu ay loolu trois noon daal noonu noonu lañ ko defee comme ça ñu mën koo distribuer pour ñëpp mën a am peut-être nag ñëpp mënuñoo am mais ña nga xamante ne ñoo gën a tooyle parce que boo demee ci critère de sélection yi yéen yéen a ko xam gis ngeen kii moo war a am kii warta am kii moo tane kii kii moo kii waaw kii kii moo tane kii loolu lépp boo leen demee ci terrain bi ngeen xool ñu ko war a am aussi tamit ngeen euh, ñu ñaanal waa waa addi parce que ñun lii ñii mënuñu ko vraiment ñun lii mënuñu ko te lii ñun ñii ngeen ko defal parce que parce que bu ñu demee Euh, <laughs> danañuy wax waa maternité ñoo fi ñëwoon donte dinañ wax adi ñun ñoo xam adi mais mais population bi sax boo waxee adi amaa ñu fàtte ko mais mais du ñu fàtte waa maternité yëmbal kon ñun lépp li ngeen def rek ñun ngeen ko defal ñun waa maternité yëmbal ñun ñoo leen war a sant ñun ñoo leen war a gërëm Ndéri encore une fois merci beaucoup te nag euh, comme madame Sarr mu ko waxee euh, yéen a ngi fi fan yu fan yu néew ci biir septembre dinañ leen woo encore pour le dépistage des malnutris des des enfants malnutris wa ngeen bàyyi ci xel amaat na beneen activité ci mois de septembre bi incha allahu rabi ah ku voyage nga mën koo planifier dégg nga. Euh, auzu billahi mina rahim. amiin ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm defal ko askanu yëmbal defal ko képp koo xamee ne tey mi ngi liggéey ci maternité bu yëmbal di commencé nag euh, ci nuyoo.

bu mu fii euh, bu demee ba jeexal aussi ñi nga xamee ne ñoom la fii bàyyi aussi taxawaay bi nga xamee ne moom la am amoon ñoom ñu ñëw yeggali liggéey bi parce que liggéey moom continuité la te wax dëgg yàlla ku def ci maternité bi fanweeri at moom ci place su liggéeyukaay bariwul kon tey bu ko defee xam na lu bëri ci maternité bi di sant aussi bàjjan gox yi parce que tamit lépp lu ñuy wax aussi tamit bàjjan gox yi dañu am wàll ci maternité bi euh, xëy na ñi nga xamee ñoo suñu partenaire di waat ANVO ñoom dañ dem ba fi nga xamé né fa lañ Espagne dañuy expliquer nit ñi lolu bàjjan gox parce que si je me rappelle il y a de cela trois ans ci ben voyage bu ma ci ben séminaire bu ñu amone ak ñom à Burgos ñi waxtaan Carmen mi nga xamé né moy coordinateur ONG bi di expliquer nit ñi espagnol yi rôle bàjjan gox mu nekkoon loo xamee ne moom bu koy expliquer ñu ni nga xamee ne ñoo nekkoon ci salle bi dañ doon déglu parce que xëy na Carmen nu mu leen koy waxee nu muy waxtaan ak ñoom ci rôlu bàjjan gox ci taxawaay bi nga xamee ne moom lañ am ci askan bi dafa nekk loo xamee ne ñoom heure bu ñu waxtaanee man dañuy wax bàjjangoox gox kon tey yéen bàjjan gox yi amul lenn loo xamee ne yëmbal desana lañ ko parce que tey gis nañ kuréelu bàjjan gox yi gis nañ aussi tamit taxawaay bi nga xamee ne moom ngeen am kon boog vraiment lu may ñaan rek mooy état ñu gën a bàyyi xel bàjjan gox parce que xëy na ñoom rek ñoo mën a tey am benn taxawaay boo xamee ne ëllëg aussi danañ leen mën a jàppale parce que nit moom buy liggéey amul salaire amul dara di ko def ngir yàlla tax dana am foo xamee ne nag état wax na leen mën a dooleel kon loolu dafa nekk donc loo xamee ne ñun à chaque fois heure bu ñu demee di wax muy ci ay plateau muy ci ay mbooloo dañ koy défendre kon bàjjan gox yi vraiment ñu ngi leen di ñaanal yéen aussi seen taxawaay gën a dëgër. di wax. ndax allah di jiital nag euh, ci nuyoo bi aussi bàjjan mat yi su ma ko waxee wax naa bàjjan gox ñëpp. moom it aussi ñu koy sant bu baax parce que gis nañ ne aussi depuis bu mu ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla liggéey bi mi ngi gën a jaar yoon waaye aussi tamit du ma wax mukk te gërëmoo aussi tamit suñu yaay suñu bàjjanu Ndeye Ndiaye parce que tey bu ñu waxee aussi tamit lépp aussi moom la parce que tey at yu ci ginnaaw bu yàlla defee ñu ñëw fii waxtaan ak Malam Sakho moom aussi dafa am benn rôle bu très important bu mu joué parce que je me rappelle premier jour bu ñu dugg si bon ak partenaires yi xëy na moom fii fii lañ ko fekkoon ci bunt bi moo ñu dalal ñu dugg gis maanaam Sakho waxtaan ak moom kon tey man aussi su may wax aussi dama koy waxaale moom di ko sant aussi ci à chaque fois ci mbooloo ci man ak moom ci ñaan yi nga xamee ne moom la ñuy ñaanal à chaque fois di santi nag relais yi wax dëgg yàlla parce que ku ne bàjjen gox aussi tamit wax relais parce que ñom aussi tamit mën naa wax ne taxway buñu am aussi tamit mom la bàjjan gox yi am donc kon képp ku yëngo ci maternité bi di sage femme yi infirmier yi ñi ngi leen di nuyu di nuyu aussi tamit universitaires yi ci stage bi nga xamee ne moom ngeen ñëw aussi amee ko fii ci maternité bu yëmbal di wax ne affaire yi moom nii la rek expérience moom terrain kese tant que yéen a ngi ci terrain bi ak loo leen jàng jàng jàng jàng te nekkoo leen ci terrain bi day am loo xamee ne quoi day des

cité bi nga xamé né fa la nek muy comico bay wax dëgg yalla sa taxaway gis nañ ko foofu donc kon merci na ñu lay nuyu baax xëy na nag wax ji du gudd parce que tay lu waral bis bi comme ni ngeen ko xamé yeen ñëpp moy lutte contre le paludisme parce que ci ben projet bo xamé ne dañ ko teggone ak wa maternité bu yëmbal yalla def aussi tamit mu bok ci journée bi tay bok ci ñu ñëw nak vraiment di leen baxé di leen accompagner parce que xeyna na ngi ci won ci at yi passé waye ñun at dañu ñëw rek accompagner leen parce que tamit lolo ñu wax en tant que ay jeunes en tant que association aussi tamit lu ñu wax ak suñu partenaire yi moy bu maternité bi soxla dañuy ñëw gunge leen mo waral ñu ñëw ak équipe l'équipe de Adi di Mariam Sarr di Lamine Sagna Agibou amna ño xamé aussi tamit dañoo absenté tay di leen wax ne nag lii tey boo leen waree dugg ci terrain bi waxtaan ak nit ñi pour sensibiliser leen parce que gis nañ ni fan yi siburu bi dafa jugaat parce que boo leen demee ci poste de santé yi wala boo leen demee ci hôpital ñu fay indi ci ay malaat yoo xamee ne siburu bi da leen laal dañoo bari trop moo tax ñu ne xëy na li nga xamee ne moom lañ fi indi as néew xëy na dana leen mën a jàppale ngeen war ngeen mën a wàcc ci terrain bi

dañ ma koy reproché man dañ ma naan booy def maternité bi suñu wàll ak li nga xamee ne moom la ñu yéenee yëmbal noonu lañ fi ñëwee mais du politique moo tax ñu ñëw fi moo tax à chaque fois damay préciser di wax ne rek politique xëy na ci benn moment la rek yàlla rek ay may nag yàlla rek ay may nit ki mën nga dem sabab lu lenn nga dem yàlla mayu la ko mais da ngay gën a sant yàlla motax à chaque fois tamit damay wax lolu damay naan même lu ñuy dem di uti bu ko yalla mayul ñun dañuy continuer di liggéey parce que dama japp né depuis à l'âge de 17 ans 18 ans lañu nek ci association bi di liggéey je pense que musuñu am ndombal tank ci politique buma ma dalee commencé def beneen côté bi politique bi musuma ci am ndombal tank motax tax développement rek wóor kon ci développement bi nga xamé né mom lañ nek mom lañuy continuer ak yeen xeyna tay par rapport avec euh, projet bi lii lañ def ak yéen suba ginnaaw suba at yi di ñëw mën na am leneen lu gën a rëy mën nañ ko def ak yéen di wax ne daal lépp loo xamee ne ñu ngi koy def ci yëmbal di ko def ci maternité bi bëgg nañ ko wëyal ci yeneen poste de sante yi incha allah kon ñun lenn rek lañ soxla ay ñaan kese lañ soxla donc lépp lu ñu def ñaanal leen ñu rek parce que je pense que ñaan yooyu ëllëg moo ñuy topp kon ñun loolu la ñuy xaar ci yéen ngeen ñaanal ñu rek

donc euh, ambulance bi ñëw na juste rek maa ngi def ci doon waxtaan ak madame Sakho bëgg nañ semaine prochaine ñu am benn réunion ak comité de santé bi nga xamee ne moo fi nekk comme ça ñu jàppandoo jour parce que ñun mën nañ jàpp jour ne leen jour bi lañ jàpp pour ñëw def cérémonie bi mais dañ bëgg aussi toog ak yéen nu mu gën a comme ça ñu jàppandoo ak yéen jour mu mën ñu permettre aussi autorité administrative wala autorité politique yu fi nekk aussi tamit ñu mën leen ko yëgal ba bu ëllëgee aussi tamit bu ñu koy def remise bi mu nek lo xamé né duma né maternité bu yëmbal mais askanu yëmbal parce que tay buñ fi indé ambulance bi aussi c'est pas que yamul rek ci maternité bi parce que tay amna yenen poste de santé yo xamé né bu ci hôpital bi nga xamé né mo fi nek mën nañ ko soxla té je pense que ko soxla aussi madame Sakho lañ koy jox kon ñu wax né inshallah d'ici les jours à venir dans def cérémonie remise ambulance d'une valeur de 35 millions inshallah di ñaan yàlla aussi leneen li nga xamee ne aussi mën nañ ko yóotu aussi bu neexee yàlla danañ ko yóotu pour indi ko fii ci maternité bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yeneen bi tedd bi ah di remercier ay dara bu baax a baax a baax ndax li mu def ni nekkul lu yomb ba pare simple daal wax dëgg yàlla gis ñu inondé mu leen di jàppale. loolu moom ay tawféex la bu baax a baax ñu koy sant bu baax di ko ci gërëm bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla defal ko fan wu gudd wér gi yaram di ko ñaanal tamit lépp lu mu yóotu rek yàlla na ko yàlla eggale ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñun bàjjen gox de kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax macha allah maternité dem kontaan na ci moom macha allah sant yàlla bu baax. donc encore waat di ko remercier waat bu baax a baax ndax gis nañ li muy def ci yëmbal gis nañ li muy def ci maternité yëmbal surtout jigéen ñi ndax ku la may échographie jox la euh, kii euh, machine bi bi bi ñuy dépisté jigéen ñi fi dem ci cancer du col kooku kenn mënu koo fay ndax kuy jàppale jigéen ci sante rek kooku kenn mënu koo fay ñun ñoo koy sant bu baax di ko gërëm bu baax a baax. maa ngi tudd Badiane Absa Sambarga de daa dëkk daal Salaam 5 sa extension nekk fii ci maternité Yeumbeul. tey de journée bi moom di ñaan rek di ñaan rek yàlla nañ si yàlla may ak réussite di ñaan tam suñu doom ji nga xamante ne suñu doom suñu rakk di ndëri ay dara mi nga xamante ne bi moom moo ñu jàppale ba ñu ba ñu am journée bi di ko ñaanal yàlla lépp lu mu yootu rek yàlla na ko ci yàlla may ndam journée bi nag macha allah kontaan nañ si te duñ ne guleet tam ndëri bés bu set rek loxo ma ngi ci askanu yëmbal rawatina ak matante yëmbal nag surtout tam wàllu xale ak jigéen loolu rek mooy taxawaayam diko ñaanal daal yalla nako yalla may ndam ci lepp lu mu sumb rek yalla nako ci yalla may ndam. wa assalamu alaykum man ma ngi tudd Baguette Maguette Kane nekk fii si maternité yëmbal dëkk phase 1 quartier phase 1. tay nak suñu journée tay bi nak mom dañ ko jëmele won ci manam walu jappalé daal dimbalante xex ci walu siburu mo ngi taxono juk tay ñu and ci ANVO ak mairie Burgos ak waa maternité yembal ño andon ñun. bu def liggey maanaam dañuy dem wacc téné bi seet yi nga xam quartier yi nga xam ño gëna bari ndox ñu jàppale leen dimbale leen ci eau de javel bi ak masque ak moustiquaire yi jox leen ay madaar jox leen ay saabu ci wàllu cet gi maanaam xeex jàngoro bi moo ngi tax a jóge ci ndox mi waaw maanaam pucc xale yi xasana yooyu moo ngi tax a jug tey danañ ànd ci ak waa ANVO comme ni ma ko waxee léegi ANVO Africa ak waa Mairie ak Matam Dara Yimba avec ñoo ànd pour mën a jàppale nit ñi daal si wàll loolu moo ngi tax rek journée bi tey ñu ngi nii préparé parce que jàpp na su bari si maternité bi maanaam suñu activité yëpp da jàpp jàpp na si wàllu xale yi malnutrition bi ñu ngi ci jàpp ci wàllu dépistage cancer bi ñu ngi ci mel nañu échographie bi ñu ngi ci ambulance bi tam ñu ngi ci lépp daal mu ngi ciy jàppale vraiment bravo daal lañ leen mën a parce que suñu partenariat suñu liggéey yëpp ñu ngi ciy jàpp si ñun amul lenn lépp la ñuy jàpp ci maternité bi lépp lu def rek ñu ngi ci biir wala wala nag moom ñu ngi nii dem ci terrain bi waaw la ñuy préparé dem ci bi nii jàpp ci liggéey bi waaw